ami téléspectateurs bu TV3 Channel nous euh, ngi leen di nuyu di leen jaar am mbégte tey daal di dellu siwaat ak yéen euh, jàkkaarloog ñi nga télé de la communauté euh, comme nous ñu koy faral di chaque fois dinañ wàcc sur le terrain d'adi dem seeti ñi nga xam ne les autorités mais également dinañ dem seeti ñi nga xam ne les célébrités tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Sébikotane commune bi nga xam mi ngi ci département bu région de Dakar ñu d'adi di fii fekk si ndaanaan bu ñu nee ndaanaan nag nekkatul ku ñuy présenté monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf gën man maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sa équipe bi nga àndal maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi lay suivre à travers euh, sa chaîne TV3 di biral nuyoo nag waa Sébikotane ñi nga xam ne euh, ñoo ma teg fii ci commune bi maa ngi leen di wax déwénati ci julli bi ñu jógee nii. bal naa leen àq maa ngi di balu àq di ñaan yalla ñu téye ko at yu bëree bëri té déwén daxaran voilà donc euh, lool mo moo ko nuyoo bi ma bay la nga dugg ci biir. alors mu nekk lu am solo comme ni mu ko waxee ñu tamit ñu koy jaajëfal bu baax di leen baalu ak euh, di ko baal ak moom moom monsieur le maire waaye dinañ koy faral di def aussi di leen gën a xamale ki nga xam ne moom mooy sunu ganu tey euh, dañ leen bàyyi rek ñu daal di jëli portrait bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee à la découverte bu ko defee ñu gën leen xamale ki nga xam ne moom mooy sunu invité du jour gane si atom ci atum 1984 ci kotan alun Pouy di ingénieur en génie civil Dorian njàngam école primaire bu Yéba atum 1990 japp 1996 ba mu joggé fofu ci la demee ca Kotan Bikotan def fa ñenti at. lycée moderne bu Kaladal la daldi amé bagam en série S2 bokku ci première promotion bi ba nopi nak don élève bi gëna xarañ lycée ba mu nekk lauréat wu prix 2003 gannaaw ba mu bagam mu jallu concours bu BTS industrie en génie civil djel ñaarelu place bi ci biir Sénégal bi yépp gannaaw gi la BTS ci CEDT Sénégal Inde ci atum 2005 at ba ca top nak mu daldi duggu école supérieure polytechnique bu Dakar daldi fay en 2009 ak diplôme ingénieur en génie civil. 2010 ñu dal di koy tànn mu ci programme de formation du Lead Africa gannaaw formation boobule ñu nous di koy fal secrétaire général bu Lead Sénégal atum 2010 ba 2015 mu dajale nag ay njiit ak i cadre ci secteur yu bari atum 2012 ñu tànn ko ci formation bu MMIP ca FASEC mu génn fa ci atum 2014 Alioune Pouy moo ngi dooree carrière professionnelle am gannaaw ba mu BTS en génie civil ci Atom 2005 ci entreprise bi ñuy wax Boax Engineering and Contracting mu jotoon fa doon conducteur des travaux chef de projet et assistant de la direction technique mu jot a liggéey nak ak yeneeni entreprise yu ci CIS Group Sablux Group Sogecap Satar BTP ak Sogabek. mi nga xamantene nak na fa doon chef de projet responsable technique ak directeur des travaux jaar-jaaram ci yooyu li entreprise tax na ba mu mën a doxal liggéey yu mag a mag ci wàllum génie civil aline Pouy moo ngi doxee carrière politique am ci atum 2011 ca parti bi di APR def fa liggéey bu am solo ba tax nag mu am ay résultats yu gën a baax ca commune bu sebikotaan ci loolee Yeba ga mu dëkk doonoon bërëb boo xamante ne njiitu réew mi Macky Sall gañe woon na ko ci boobu boobule jamono muy ñaawlu nag doxalin bu ñàkk sell bu am ci biir commune am Sébikotane atum 2014 parti ba daal di samp ndëndam ak waa IPD ci wote goxu xaati mu daal di jël ndam li ca yeeba gi mu dëkk ba tax mu daal di am ñaari conseiller ci atum 2017 mu daal di jàppale coalition bi di taxawu Sénégal bu xalifa Sall ak Idrissa Seck jëm ci wote député yi mu daal di jëlaat ndam li ca yeeba ci jamono boobee nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar mu ngi doon jël ndam li ci yeneen centre de vote yi Alioune Pouy daal di wàll ca Pastef ca atum gannaaw ba mu gisee ak Ousmane Sonko Wode tax nak présidentielle 2019 yi Pastef daldi jël ñaari lu place daldi njitu Idrissa Seck ci wote goxaat ci atum 2022 mu nangu candidat bu yewé askan wi ci Sibikotan Don jël ndam li doon ñeenteelu maire bu Sibikotan koku moy monsieur di ganu gën man

Euh, man Aliou Pouy je suis né en 1984 ici ci Sébikotane donc suis am 38 euh, ans je suis ak je ci euh, ingénieur la en génie civil Je ngi yëngatu ci bâtiments, bâtiment travaux publics ay pont ay tali ak yu mel suis maa ngi depuis 2005 bientôt 17 ans de carrière professionnelle y euh, a aussi une formation en management des infrastructures publiques aussi en environnement et développement durable bon politique bi nag maa depuis 2011 je suis candidat pour une première fois en 2014 je candidat qui élection municipale bi candidat jàllul woon waaye fa score 2022 ma mën na candidat sous la bannière de Yewi

li nga xam ne euh, tey jii nii jàpp naa ne actif la boo xam ne fekk naa ko fii ci ci ci ci commune bu bu Sébikotane quand même dinaa wax ne bi ñu ñëwee fekk nañ fii un budget boo xam ne voté nañ ko ba xam ne permettre nañu ñu mën a continuer di dérouler tan que boo demee ci yeneen commune yi bi ñu ñëwee mënuñu woon def dara parce que amuñu woon budget dañoo bloqué woon donc loolu déjà mën nañu ko considérer comme loo xam ne actif la woon euh, fekk nañu aussi ne ci au niveau du trésor maanaam ci euh commune bi amna xaliss xaalis bu fi desoon bo xamné permettre nañu tamit ñu mëna a continuer di fonctionner ci ay weer donc lolu ci actif biñ fi bi fekk la bon fekk nañ fi boni programme d'investissement plan d'investissement annuel mooy PAI un plan d'investissement euh, disons triennal loolu yeb ay documents la yo xamné fekk nañ ko fi té équipe bi nga xamné mom mo fi joggé

boo fekkee nañ fi aussi ci actif bi ba tey euh, commune bi mu éligible ci programme bu am important boobu ñuy wax PACASEN waaw te loolu vraiment euh, ñu commune yu bëri bëggoon nañ ko amuñu ko mais ñun commune Sébikotane euh, fekk nañ mu nekk ci dynamique bi bi ñu toogee waa Cour des comptes ñëw pour évaluer bi ñëwee ñu évaluer ñu yëpp juróom-ñetti critères yi nga xam ne moom la ñu doon saytu bi ñu ko saytoo fii ci commune bi gis nañ ne yëpp baax na ba loolu moo ñuy permettre ñuy continuer di bénéficier ci fonds PACASEN loolu yëpp ci lu ñu fekk fii ci actif la bon su may ñëw nag ci euh, passif bi ci fekkee mën naa ko tuddee noonu mooy que ne tamit fekk nañ fi ay affaires yu bëri yoo xam ne xëy na dañ ko war a jooyanti bon yi ci gën a bëri nag euh, xam naa ne waa Sébikotane xam nañ ko mooy ci ni ñu doon gérer suuf si véritablement fekk nañ fi ay actes yu bëri yoo xam ne ci ci jamono bañ koy def euh, jaaruñu yoon fa ñu war a jaar ba def ko ah actes yu bëri dañuy dem ba tey jii sax dañ koy delloo pour ñu wax ne actes yi baaxul parce que dañoo dem ba war wut ay baay ñoo ne leen actes yi ngeen amoon boo xam ne maire ak receveur de domaine moo ko signé actes yooyu valabalul il faut que ngeen am ay délibération fekk nañ fi tamit euh, ay délibération yoo xam ne tamit conseil bi nga xam ne moo fi nekkoon yéegu ko woon ni mu ko waroon yéegee maanaam jàllul carrément ni ñëw ak seen projet ni ñu lii lañu ñu war a def pour que ñu délibéré leen yooyu yëpp am na fi voilà ci procédure bi conseil yi sax yéeguñu woon yenn yi bon euh, fekk nañ fii euh, tamit ba tey ci wàllum suuf si ay réclamation yu bëri maanaam benn terrain boo xam ne ay ñaar ñetti nit ñeenti nit ñëpp ku nekk day ñëw am kayit ne terrain bi maa ko moom bon amna na yenn explication mais am ci yo xamné nak doy dooy explication voilà donc lolu dal fekk nañ ko fi ci wàllum souci fekk nañ tamit ne euh, ci wàllum souci batay commune bi amuñu won véritablement benn plan d'aménagement bo xamné dañuy génne mbéd yi génne équipement yi ba nga xamné bo amé dara nga am foko mëna mën a euh, implanter mais boo xoolee Sébikotane ni ñu doon ki dañ doon dagaté suuf yi quasiment lépp ay kër la doon nek ñu joxé ko ba nga xamné tay tey jii euh, amuñu ben espace bo xamné ne mën nañ fi def yenn équipement yi lool tamit ci euh, ci ci luñu fekk fi le ci walum souf ci bon fekk nañ fi nag ci walum souf ba tey benn coow bu reuy moy affaire déclassement de 75 hectares bi nga xamné ñun euh ñu fi ñëwé dañu fekk muy doora am ndax ndaxte décret bobu ñu ko jël le 25 janvier danaka bañu togué ci ëllëg sa la euh, def décret déclassé 75 hectares ci commune bi xam ngeen loolu surface bu bu yaatoo la jox ko ay société bàyyi commune bi loolu yëpp ci ni ma mën a tuddee passif la boo xam ne ñun euh, fekk nañ ko fii ci ci commune bu bu Sébikotane d'accord comme ni nga ko waxee monsieur le maire mu nekk loo xam ne lu am solo la euh, loolu nga tuddee passif euh, buñ ci taxawandee tuuti ci wàllum domanial parce que tey mënuñu wax tamit ba génn ci émission bi te duñu tudd li nga xam ne mooy wàllum suuf ñenn ñi sax nee nañ monsieur le maire dafa xaw a ragal li nga xamne mom moy dossier suuf si mhm. euh, patate chaude la bo xamne donc tek nañ ko ci loxom mhm. euh, ba tax na kenn du ko ci sax deg mu dal di ci communiquer mom dal mi ngi ne nemb rek di deglu gaay mhm. lu waral nopi bobu non ah bon monsieur le maire mënul ragal suuf si ji di jiite commune ba pare ngay ragal suuf si te commune bi suuf nek compétence commune bi donc lolu demeew noonu c'est-à-dire que comme dañu ñëw fekk yenn mbir yu bëri jaxaso il faut que ñu téy ci dañ ciy téy d'accord naa loolu mooy ñu toog càmbar li fi nekkoon xool li nga xam ne baax na ñu mën a continuer li nga xam ne baaxul te mu laaj ñu mën ko joyanti ñu joyanti ko li nga xam ne xëy na mënuñu ko joyanti tamit ñu xam ne lii mënuñu ko joyanti ba pare sukkandiku ci loolu tamit pour xool ñun yi ñi nga xam ne ñun ñu moom la ñuy defal suñu bopp fan lañu koy teg ba nga xam ne li amoon li passé dootul amati ñun ci po ci phase boobu la ñu nekk maanaam ñu ngi def li tubaab di wax état des lieux maanaam di xool problème yi ak réclamation yi bi ñëwee ubbi nañ fi benn bureau réclamation ku am euh, réclamation ci walum souf nga nga ñëw bind ko fi ñu ñu saytu ko man la wax ni ah sa sa situation fi ak fi la tollu donc lolu mo mo waral ñu hawa tay euh, ci mbirum souf ci mais du vraiment lo xam dañ ko ragal et ñu ngi ci avancer yaakaar naa ne bientôt li nga xam ne yëpp dañ ko arrêté woon li wàllum jëm ci wàllum euh, fra euh, disons acte yoo xam ne dem na ci wàllum suuf ak yooyu fii ak ay fan peut-être wala ay semaine dinañ commencé di ubbi ndànk-ndànk ci gox yi nga xam ne jàpp nañ ne xool nañ ko ba euh, amul ay ay problème d'accord balaa ngay euh wax nga ko sank moy que ni euh, le président wala soit bañ la falé ci lendemain bi le président si le génnee décret mm-hmm. daal di déclasser 75 hectares ci euh, forêt classée bi mu nekk ci diwaanu Sébikotane ak liko ko wër mm-hmm. euh, ñu toogaat touti aussi dégg na déclassé wat na yenen 100 hectares daal di jël 35 mm-hmm. hectares jagleel ko li nga xamné moy commune bu Sébikotane les 65, mu jox ko les impactés du TER alors 35 hectares yoy bo ba léegi aussi tamit dégg guñu ñu ci yàbbi commune bu Sébikotane nan la ci fas yéene xam nga bi ñu ñëwee ñu fekk fii euh, coow loolu hectares yi ci lañu ñu euh, taxaw ni ah lii nii waru demee nii ndaxte Sébikotane am forêt classée ñu déclassé lu toll 75 quinze jox ko ay société bàyyi commune bi te am na ay soxla war na yokk commune bi ay dëkkuwaay ci ay équipement ak yu mel noonu bon ci lañu bind toutes les autorités muy préfet ba ba président de la république bind nañ ko wax ko ne ah ñun euh, bëggoon nañu gaa ñu déclasser ñu mais déclassement bi nga def gisuñ ci suñu bopp bu ñu sañoon nag da ngay def déclassement boo xam ne commune bi da ciy gis boppam. bon ci loolu nag la déclassé wat yeneen 100 hectares comme ni ko waxee jox les 65 mooy euh, juróom-benn fukk yi ak juróom yi ñu ngi ko jox euh, APIX pour le recasement des impactés du terre. bu waaw bu deuxième phase mooy waa Sébikotane ak waa Diamniadio loolu la ñuy wax ci décret bi. beneen bi les 35 hectares ñu jox ko commune bu kotaan bon bu ngeen déggoo leen ci ñu yee yàbbi ci ñun en tout cas ci conseil municipal bi nga xam ne te tenir nañ ko bi bu weesu man wax naa leen euh, informé naa conseil bi ci euh, déclassement bi ndax ñun jot nañ décret bi bu yàgg informé nañu conseil bi ñu wax leen ñu gis ne nag loolu tamit jéego la ndaxte déclassement bu njëkk ba commune bi gisu ci woon boppam waaye bii nii commune bi dañ ciy gis boppam ci ñaari fànn. ndax cinq hectares yooyu ñuy jox impacte yi impacté yooyu ay doomu Sébikotane ñoo ci gën a bëri donc commune bi dina gis boppam ci cinq yi ba pare ñu doolu yeneen 60 35 hectares jox ko commune bi donc jàpp nañ ne décret bi nga xam ne moo mujjee décret la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, ñun mën nañu ko rafetlu euh, buñ ko bu ñu ko méngale ak décret décret bu njëkk ba mais suñu combat yemul foofu ndaxte euh, décret bu njëkk bi Fini jox euh, HLM particulièrement 50 hectares yi dafa nek fi nga xamné commune bi fofu la gëna mëna mën ñun ñu ñëw jox ñu 35 ginnaaw HLM fo xamné dafa gëna sori ñun actuellement ñu ngi en pour parler ak wa HLM pour ñu jox ñu sen 50 euh, yi ñun ñu jox leen suñu 35 jàpp naa ne moo leen gën a arrangé ñoom ñun tamit moo ñuy gën a arrangé. ñu gën a jege si waaye ci biir loolu dafa am ñoo xam ne dèjà euh, boole nañu ba tabax ba dëkk te jëlé leen xëy mëna metti ci tandis que bu commune bi mom 50 yoyu dina leen mëna régulariser li des ci 50 yi mu koy tamit bu jël mu ko andil tandis que jox yomb en terme de prise de possession mu jël vous, collé APEX bi d'habitude comme mom day jaay ay parcelles lolu donc ñu ngi discuter ci ci pour que. Sébikotane vraiment am continuité territoriale ñu bañ a am benn genre dog-dog diggante ñun ak euh, programme bu bu HLM bi. Hmm. alors ba léegi dañ ci desandi ci wàllum li nga xam ne moom mooy euh, euh, loolu di wàllum domanial bi parce que tamit mënuñu wax pare waxuñu ci wàllum limite parce que nekk na aussi coow boo xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci yéey yàbbi mais ba léegi xamaguñu Sébikotane ay limitam fan la yem est ouest nord sud. Euh, am na sax ñu naan commune bu Diamniadio dem na ba daal di phagocyté lu bari ci ko taan euh, loolu aussi mu nekk dossier boo xam ne fekk nga ko sur la table ban taxawaay ngeen ci fas yéene am. ci wàllum limite yi laataa sax may toog bi ñu gagné élection yi laa dem euh, gisante ak sous préfet bu Diamniadio ma ne ko monsieur le sous préfet de maa ngi waaj jël bokk commune boo xam ne xaw ma fan la yem. te commune balaa nga ko mën a gérer bu baax yow nga xam sa commune ne fii la tàmbalee fii la fii la yem bon euh, ñu ne ma bon président def na décret délimité commune yëpp mais décret bi euh, génne gu guñu ko bi ñu toogee nag gis nañu problème boobu ndax bi ñu toogee man def naa tuur commune bi yëpp di xool gis naa foo xam ne waa Diamniadio ñoo porté lotissement ñëw dugg ci biir Sébikotane di fi def lotissement fii ci Kip Kip te jamono yooyu ba ñu woowee waa cadastre ak euh, waa domaine ak service technique état yëpp ñu xool limitu ñaajo yi dañoo gis ne carrément Diamniadio fa mu nekk di def lotissement génn na ci commune am mu ngi biir Sébikotane voilà mu ngi fii ci ci Kip Kip pour ni projet de lotissement bi ñuy def ci côté zone industrielle bi tamit lu mel noonu am na fa ndaxte xamuñu exactement euh, Sébi ak jam ñaajo fan la yem Diamniadio euh, nag bi ñuy defaraat arrondi département bu Kër Massar bi ñu ko créé dañoo redéfinir limitu jam ñaajo tey jam ñaajo xam na limitam mais Sébikotane daanaka moo xamul limitam mais diggante jam ñaajo ak Sébikotane comme jam ñaajo xam na limitam bu ñu ko xoole bu ñu sukkandikoo ci décret bi dañu xam ne jam ñaajo fii la yem waaye waaye jam ñaajo dañuy bëgg a jéggi limite boobu dugg biir Sébikotane bind nañ leen bind nañ toutes les autorités semaine bi passée gis naa gouverneur de Dakar ak préfet de Rufisque ak waa ANAT mm. gisante nañu euh, ci benn euh, réunion Madame ah, euh, semaine avant tabaski ah, euh, monsieur le gouverneur il faut que nous des un problème limite comme l'Agence ANAT nationale de l'aménagement du territoire Nous, avons un sérieux problème de limite au niveau de Sébikotane particulièrement avec Diamniadio mais nous avons am nañ problème de limite à Kermouze, à Dias, à Yen à Bambilor donc il faut que les yooyu vraiment ANAT nous, wan ñu commune su boobaa nag lañuy ñuy gën a mën a toog ak waa jam ñaajo bu dee dañuy négocier ñun ñu xam ci lan ci ban base la ñuy négocier ah mais tant que xamuñu lan moo nekk ci suñu commune ak lu nekkul ci suñu commune du ñu mën a toog di dem ci ay négociation ci affaire de intercommunalité. voilà foofu daal euh, le problème bi toll bind nañu ministère yëpp yi nga xam ne ñoo war a régler problème boobu et gouverneur tamit nee na dina ci taxaw donc am nañ yaakaar ne problème boobu fekk ay semaine wala ay weer. autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ci mën a taxaw dañ ci taxaw pour ñu régler ko. est-ce que aussi nga ci jéego daal di seeti sa naataango bi nekk Diamniadio muy euh, monsieur le maire euh, seetiwuma ko pour ñu wax ci waaye bind naa ko. waaw man bind naa ko lettre wax ko ne ah euh, ñi war a àtte ci li warum limite yi état bi teg leen fi wax nañ ne Sébikotane fi nga nekk di lotisé ci biir ko Sébikotane la bokk su ma sañoon nag ngeen arrêté lotissement bi.

Euh, Sébikotane ñu ngi toog di xaar monsieur le maire euh, lan la ñu andil euh, programme bi tarkalla macha allah donc buñ ko dellu ñu ci dellu siwaatee ci jamonoy campagne li nga proposé Sébikotane tax ba loolu donc daal leen jox yaakaar pour que ñu mën laa teg ci bopp li nga xam ne moom mooy dëkk bi waaye nag boobu ba léegi ñu gis ne monsieur le maire daal dafa toog ci papier ci bureau yi rek jàkkaarloog papier yi mais boobu ba gisaguñu benn réalisation. waaw eh <laughs> jërëjëf Gueye man question bu solo nga posé. yenn yi ma ngi may wër di dégg ñu naan lan mooy bilan monsieur le maire ma ne koo xam ne bi ñu toogee léegi ci juróomi weer la toll ah, koo xam ne yaa ngi ko ci juróomi at mu toog euh, juróomi weer nga commencé ko laaj laaj bilan dina xaw a xaw a yéeme bon mais nag ñu comprendre nañu ndax yaakaar bi moo fort xëy na nit ñi aussi yaakamti nañu mais ñun tamit euh, xam nañu fi ñu jëm xam nañu aussi euh, du jarul yaakamti ba yàqule Euh, xam nañu nan la ñu fay demee noonu noonu ñuy def ndànk-ndànk donc bi ñu ñëwee wax naa la sànq état des lieux bi nga xam ne ci lañ nekkoon ndaxte yow euh, boo ñëwee hérité commune euh, il faut nga def état des lieux nga xam nga càmbar lépp pour nga xam fa nga jëm donc ci loolu la ñu toll. ñëw nañ tamit wax naa la ko sànq fekk budget boo xam ne voté nañ ko ba teg ko donc boo xam ne boo ci bëggee defaat leneen il faut nga woot conseil bi yëpp ah pour modifier ko. bu ñu ñëwee tamit administration commission war a installé commission bu tudd commission des marchés il faut nga installé ko dossier ARMP mu mu avis de non objection ba pare nga door commencé déroulé loolu temps ñun dem mairie papier sax amuñu ko te mënuñu ko parce que organes yi nga xam ne voilà donc yoyep yëpp c'est des euh, contraintes yo xamné xagn na ki nekkoon ci biir wala ku xam ni collectivité yi di doxee dana ko xam mais ku ko xamul nak mën na toog fële naan ah gars yi seen affaire gisaguñu dara wala yéna mais buñu yakamti mais malgré tout ñun tamit ci 5 mois yi defe def nañ fi lu lu liggéey bu am solo ma ngi lay wax sànq démarches yi ñu def yépp pour que ñu am un un déclassement de 35 hectares lolu ñun ñoko porter du keneen ñun ñi ñoo porté euh, combat bi au niveau du ministère de l'environnement ak présidence ba ñu déclassé ñu trent cinq hectares euh, ginnaaw ba njëkkee soixante quinze donc loolu acte la boo xam ne xëy na nit ñi peut-être que ko yéguñu ko moo tax mais lu am am solo la. aussi communication bi ci war def ngeen ko pour mu impacter. waaw communication bi defaguñu ko carrément li ma la wax ni sànq moo gën a tax comme ñun dañoo nekk di waxtaan ak HLM ak yooyu.

ba ñu defar ay caniveau nettoyer canal yeeg yooyu ba nga xam ne bu tawee xëy na ndox mi du taa ci dëkk bi alors que loolu commune bi dañu daan dépenser par exemple 15 millions loolu ñun économisé nañ 15 millions foofu yoo xam ne suba mën nañ ko dugal ci ci ci ci leneen ndax besoin yi bëri na loolu loo xam ne Seri Palfa ba ku ku ñëw ku wërse bi di ko gis lu ñu fi jot a def ci wàllum euh, opération pré hivernale ak canal yi nga xam ne gas nañ ko fi pour mën a euh, mën a yóbbu ndox mi bi ñëwee tamit fekk nañu fi problème mu CM Sébicar boo xam ne équipe sortante doon na ko gérer ba reloger une partie des élèves ñun bi ñëwee tamit gérer nañ ko ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi doon yëngatu mooy collectif bi ak yenn initiative yi ba élèves yi kenn génnewu leen ba ni euh, AGETIP ñëwee jël affaire yi en charge mooy coow li nga amoon ci bi nga déggoon ci ci CM Sébicar loolu ci suñu suñu article la lañ ko mën a wax. Euh, tamit AGETIP bi mu ñëwee war a tabaxaat école euh, amul fu mu ko def parce que waa gaar bëgguñu woon école bi mu génn sebi gaar te amatuñu woon espace foofu boo xam ne mën nañ fa def école bi la fa nekkoon ci terrain ay terrain jàmbur la man dem naa directeur AGETIP directeur général AGETIP ñu mu recevoir ma ñu waxtaan mu ne ma su ma ko joxee rek mu tabax moom yor na xaalis pour tabaxaat CEM bi daf ko bëgg a tabax balaa école di ubbi su ma ko joxee beneen site dana ñëw def étude de sole yi bu baaxee rek moom mu commencé tabax bi donc man lay xaar gouverneur bind ma ministre bi euh, bind ma bi loolu amee am na beneen borom terrain bu nekk Sébigar boo xam ne amoon na 32 parcelles su ma juumul bayal bu xaw yaatu boo xam ne moo ngi ay kayitam mais ñun woo nañ ko waxtaan ak moom ba tey jii nii mu nangu ñu jox loolu pour après ñu jox ko leneen ba tey jii nii euh, bu fekkee ne étude de sol yi baax na ci suuf soosu incha allah CM bi du génn biir Sébigar loolu acte bu rëy la ndax terrain boobu bu ñu ko naroon jëndi tey xëy na xaas bu bëri moo koy jënd voilà loolu yëpp mën nañu ko capitaliser ci yi nga xam ne def nañ ko su ma ba tey euh, ci li nga xam ne ñun def nañu ko euh, CM Sorox amuñoo ndox daan ngeen dégg tout le temps xale yi wax ne amuñu ndox entrepreneur bi doon liggéey ndoxu Ndoyeen suivre nañ ko parce que fekk nañu muy démarrer travaux yi ba def réseau bi mais suivre nañu travaux ak mom ba am ndox ak CM bi amuloon ndox ak ba mu andi ndox mi ba ci CM loolu ci li nga ñun ci euh, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle mu ngi bëggoon centre de formation fii xam ne centre bi fi nekk dañoo loué ci bâtiment te bâtiment boobu terre bi da koy impacté depuis ay at mu ngi wut fu centre ñun euh, dem nañu tamit comme niñ ñu ko defee Sébigar gis ay terrain waxtaan ak seen borom ba ñu am fa 2 hectares yo xamné def nañ def nañ délibération affecté ko ministère bi pour mu mën fa def tabax centre. waaw mu ngi diggante Saldewaas ak Yeba. Mhm. donc euh fofu lañu wara a tabax centre bi lancer nañu marché bi un marché de 400 millions bo xamné semaine bi ñu génné ni nous euh, sommes venus fii pour def visite de site parce que entrepreneur bi gagné na marché et ba commencer a centre de formation bi nga ministère bi moom donc tout ça ci li nga savez ñun ci bu Gata, fi euh, donc euh, disons éducation société passé un lot de table banc de fournitures

7 millions rek lañ que walum ndox ci année 2022 mais ñun def fait ay virement de crédit ak ay autorisation ba nous ndox mi 7 millions yobbu ko à 100 millions. 100 millions hein? ci ay fan d'eau ndox bu pour nit ñi mëna am ndox ci seen kër. Mhm. Nous ko millions yobbu ko ba millions. Mhm. té fan euh, yi euh inshallah dinañ ci gox yi mel ni carrière ak sebi tàngoor yi nga xam ne véritablement problème ndox soxal na leen. donc loolu yëpp ci loo nga xam ne ñun ñu ngi nekk di ko def la bon xëy na mënuñu wax lépp ci cadre émission bi mais domaine boo jël. mën naa la wax ne ñun euh, am nañ fi taxawaay boo xam ne quand même euh, taxawaay bu bu baax la ñu ngi liggéey nag te boole ñu ko ak coow lu bëri. waaye incha allah fii ay ay ay fan yaakaar naa war fii ak ay ay ay weer waa Sébikotane danañu gis li ñuy def entrée Sébikotane gis ngeen oto yi nu ñuy gaare foofu camion yi devant Someta boo jógee jógee dakaar ngay dugg se bi mais dangay ngay ruus ndax camion ni nu ñuy gaare gaare noonu ci anarchie bi fa am mais ñun fi fi may waxee yow nii defar nañ benn plan d'aménagement bu baax boo xam ne euh, Ageroute lañ koy soumettre pour mu autoriser ko parce que euh, dañ ko war a defar te une bonne partie ci emprise route bi la pour que ñu defar ko un parking boo xam ne dañ koy defar ak ay espace vert ak yenn équipement yi ba foofu ku fay dugg li nga xam ne lii de c'est organisé et c'est projet boo xam ne day tax commune bi mën a gañ xaalis projet boobu ci suñu calcul bu ñu ko defaree at mu nekk war na mën a andi au minimum 30 millions ci gafaka commune bi te boobu projet la boo xam ne ñu ngi koy démarrer xaaruñu boobu dañ koy démarrer ci lu mu gën a gaawee euh, ci 2022 bi incha allah yooyu yëpp c'est des projets yi nga xam ne mu ngi nekk euh, en cours defe na bu ngeen fa jaaree sax di ngeen fa gis ay jallu latérite ñu ngi fa def boobu projet bu bu concret la boo xam ne ñun tàmbalee nañ ko voilà commencé nañ ko déjà donc daal euh, mbir mi daal euh, bëri na mais daal mën naa la ci lii jël nañu ay mesures aussi yoo xam ne jaru xeeb ndax biñ fi ñëwee tous les lotissements yi nga xam dafa nekkoon ci commune bi te amuñu woon autorisation dañu leen arrêté loolu mesure la ndax nit ñi dañoo ñëw lotissé bu ñu paree du ñu am ay kayit borom kayit du ñu am kayit nekk ci ay régularisation dañ ko arrêté wax promoteur yi ah ku bëgg a def lotissement da ngay tegu ci yoon wut autorisation de lotir commune bi accompagner la ñu wut autorisation de lotir et mieux dañ leen wax léegi ne lot euh, lotissement dootul ñëw wut machine terrasser rek samp say kat jaay terrain yi ndax loolu moo ñu andi jafe-jafe ndox ak courant yi nga xam ne population yi ñu ngi koy jooy actuellement promoteur yi léegi dañu leen di wax ne ku bëgg a lotissé da ngay andi ndox andi courant andi yoon yi ba am na promoteurs yoo xam ne nangu nañu loolu ba ñu nag ñoom ñu ngi ci projet pour am autorisation de lotir donc loolu yëpp ay mesures la yoo xam ne tamit jarul xeeb te dana euh, gën a améliorer commune bi je pense que nu muy nu muy comporté woo. wàllum pavage yi euh, tey booy dugg Sébikotane bokk na ci lu gën a sauté à l'œil nu ci li nga xam mom moy ni fi fi faral di romb mhm. ñen ñi aussi xaw ci gis li nga xam mom moy état bi nga xam pavage yi toll na fa lo mhm. xam kino inauguré guñ ko sax mhm. pratiquement ñu gis ci yenn détérioration yi nekk loo xam donc ñu ci demander ba légui euh ban taxaway la ci monsieur le maire fas yéene am waaw je pense que monsieur le maire déjà am ci taxaway ndax pavage bi bu ngeen seyto ñi ko defoon ñëwaat nañu di defaraat bu ñu ñëwee entrepreneur bi nga xam ne moo ko defaroon dañ ko woo mu ñëw ñu ne ko pavage bi il faut nga defaraat ko parce que niñ ko defaree yu bëri baaxul moom euh, mu nangu loolu tamit andi ay équipe am mu ngi defaraat pavage bi defe naa ne am na yu bëri yu mu teggi tegaat ko bon pavage bi nag euh, projet la boo xam ne da ko def ñetti at mais ñun suñu gis-gis mooy au lieu que ñuy pavé trottoir bi dañoo war a pavé mbedd yi mu dugg ci biir koñ yi loolu moo tax ñun ñu arrêté ko poste courant pavage bi poste courant lay arrêté du continuer foofu waaye li mu jotoon defar yëpp wax nañ ko mu defaraat ko euh, ba mu baax ñu réceptionné loolu li ci des dañ koy dugal ci biir mbedd yi ndaxte route nationale bi xam naa ne fekk ay at azir dina ko élargir d'ailleurs bi ñëwee ba ci terre bi pont bi ñuy def diggante route nationale bi ak terre bi fi ñuy croisante pont bu deux fois trois voies lañ fay def loolu moo lay wax ne ñoom xalaat nañ ne yoon bi dañ ko élargir en deux fois trois voies donc euh, pavage bii nii euh, xëy na fekk ay at peut-être mën nañ ko fi dindi pavage trottoir yi mais ñun arrêté nañ ko mbedd yi la ñuy pavé léegi mu dugg ci koñ yi comme ça nit ñi mën a am ay yoon yoo xam ne dina mën leen mën a yóbbu ba seen kër te du ñu ngiroo ci yoon wi ay suuf ak yooyu du leen sonal donc loolu euh, mooy li ma la mën a wax ci wàllum pavage. donc ñu xayma woon ko ci 120 millions chaque année bu ma juumul

zone bi nga xam ne pratiquement bëri na ay entreprises yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi installé wu. Mm-hmm. est-ce que en réalité jël ngeen les devants pour que nag ñoom ñu mën a impacter positivement ci population bi. waaw jël nañu les devants xam nga question bi nga posé am na importance ndax bu ñëwee dañu fa fekk ay société ñii ñu ngi doon def ñii peut-être defuñu wala li ñu doon def xeeb nañ ko mais bu ñu ñëwee def nañ tour société yépp ñu ci gën a bëri bokk ci gën a ràññeeku rencontré waxtaan ak ñoom li nga xamne mo la war ci commune bi li ñu war fay impôt laaj leen ñom seen kayit ñu jox ñuko pour ñu xam ndax société bi mu ngi fay impôt wala fayul wala bu dee mu ngi fay la mu fay méngoo na ak la mu war fay ñun loolu la njëkk def société bari bëri bi ñu leen bindee tontu nañu andi ñu seen euh, formule de contribution économique locale mooy euh, contribution économique locale mooy lañu ñu wax moom lañ ñu tuddee sel moo remplacer patente bi la fay bon loolu ñu ngi koy analyser dinañu wut ay experts en fiscalité pour ñu xoolal ñu saytul ñu ba xam ndax loolu baax na wala baaxul bon deuxièmement ñu ne leen RSE bi dafa am importance ndaxte c'est bi bëri na ay industries yu yu fi nekk yu mag te bu ñu fi nekkee dañoo war a pour commune bi am na ñoo xam ne nag ñu doon def je pense que fan yii passé gis ngeen Someta mu organiser un tournoi de football ba doon def finale ba invité ma fa kooku chaque année mu bëgg na organiser tournoi bu mel noonu et tamit mettre na à la disposition de de de la commune 24 millions ci walum RSM par an yak naa ne loolu wax ko ba ñëpp dégg ko té néne na fas yéenewul yem dem nañu gis par exemple une société comme Fabri Metal ñu ne ñu ñoom poste de santé bu Sébigar ñom ñokoy tabax bon nañ leen andi plan yi ak wan leen fi koy tabax bañu waxé waxee dans la semaine ñun ñu defar plan euh, wut extrait de plan terrain bi defar dossier bi yëpp. jébal leen ko ma ñu ngi leen di déglu ñoom nee nañ jot nañ ko eh, bon ñu ngi leen di déglu ñoom ñoo jël engagement ne danañ tabax poste de santé bu bu Sébigar bon yeneen société tamit maa ngi lay wax sànq soleil international li mu fi indi ci ay table banc ak yu mel noonu ku mel ni Sénat tamit mu ngi jàppale bu baax eh, ASC Daaru Salaam ci compétition yi bi ñu fi ñëwee waa Daaru ma ñu bind leen ils ont répondu favorablement eh, appuyer leen financièrement ci seen activités yi ak yeneen ak yeneen yu mel noonu mais ñun euh, dañoo bëgg action société yi ñu ñu disons ñu ñu boole ko pour que mu mën a am impact parce que bu fekkee benn société bu nekk day toog tantôt mu def lii wala ni jékki-jékki andi fa dara mu régler loolu bu pare mu ne def naa te lu muy def du feeñ man li ma leen wax mooy commune bi am na ay projet yoo xam ne budget bi attanu ko te mu nekk ay projet yoo xam ne soxal na ko dañ koy tënk ci projet jébal ko société yi ku nekk wax lu mu mën a def ndax bu defee au moins dinañ am projet yoo xam ne en dinañ xam tamit entreprise la def euh, commune bi ndax entreprise visibilité pour que relation entre population et entreprise mu relation yu donc ñun ak qui ci actuellement pour harmoniser l'intervention euh, entreprise dans le cadre euh, de la RSE d'accord donc euh, mu nek lo xam amna solo comme ni ko euh, bientôt les Navetans, euh, te ko wax navétane ci zone bi nga xam mom moy zone 6 bu Sébikotane wax difficulté yi nga ne les jeunes ñu koy faral di surtout ci li nga xam moy sen pratique ci terrain bi nga xam ne mu la ñu fubalee ñu ko stade municipal alors est-ce que monsieur le maire amna ben programme spécifique pour cette année-ci nak nawetaan yi nga xam moy mooy 2022 ñu mën accompagner la zone 6 pour qu'en réalité ñu mën am la forme waaw bon amener nañu programme et des subventions bi ñu leen jox annuellement inscrit nañ ko ci budget bi actuellement fi ma waxee yow ni ñu ngi euh, def formalité yi pour libérer subventions yi ndax bientôt nawetaan commencé il y a quelques jours on na CRD bu amoon Dakar où xam ne ministère euh, ministre des sports moo ko présidé woon doon wax ci affaire euh, nawetaan yi mu ngi chambre de commerce donc nawetaan dina am donc ñun dinañ libérer subventions bi bon terrain de football bi tamit yëg ngeen ne fan yi passé amoon na fa ay euh, ay disons benn sàcc bu fa amoon ñu jël fa ay buntu ak yu mel noonu bon am na ay travaux yu ñu fa war a defaraat ñu ngi xool niñ koy defaree ak terrain bi tamit bu fekkee ne mën nañ leen tuuti pour mu gën a neex a footballé loolu la ñu prévoir pour atum deux mille vingt 2022 bi maintenant bu loolu weesoo budget 2022 bi am na crédit yi ci inscrire xaalis pour jënd terrain bi ndax terrain bi ba su ñuy waxee yéen ni titre foncier jàmbur la commune bi moomu ko mais commune bi inscriroon na ci budget bi xaalis pour mën a jënd terrain bi ñu ngi discuter ak famille bi nag parce que dañoo d'accordagul ci ci prix mais discussion yi mu ngi avancé te am na yaakaar ne fekk at bi jeex dinañ am accord ba mën a jënd terrain bi parce que tant que jënduñu terrain bi mënuñ ci def yenn yenn investissement yi d'ailleurs Cour bi mu fi ñëwee fait euh, def euh, contrôle daf ñu reproché commune Sébikotane ne dafa jël ha alalam diko investir ci terrain jàmbur un loolu waru ko def muy clôture bi ñu def fofu yépp Cour de compte daf ñoo loolu actuellement voilà pour nit ñi xamé ko mais am nañu yaakaar année bi jeex dañ a jël terrain bi pour que à partir de 2023 nak li nga xamné vraiment ça me tient au cœur moy mm-hmm. defaral leen pelouse ak ay éclairage ñu commencé travaux yoyu inshallah pense bien que acteurs yi nga xamné ne ñu ngi déglu les acteurs sportifs donc message baa ngi euh, monsieur le maire comme nim ko waxé mi ngi leen wadjal li nga xamné mom moy ay surprise ci at yi ñëw mais ta lolu dina leen accompagner ci navetane 2022 yi bu ko defee ngeen am li nga xam ne mooy cadre bi nga xam ne moom ngeen bëgg akus néew pour mën a nag pratiquer li nga xam ne moom mooy seen sport belle transition aussi monsieur le maire pour que ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, mun naa ne fu mu toll nii luy bës ci Sébikotane muy wàllum terre mm-hmm. euh, terre bi nekk loo xam ne tey pratiquement depuis un certain temps ñu ngi ci épilogué lu bari donc bari na ci ay version yoo xam ne dégg nañ ko ci mm-hmm. fan nga tolloog les impactés les impacts du terre mm-hmm. bon impacté yi quasiment du commune bi moo leen géré impacté yi euh,

mais teewul nag yenn saa ma daje impacté ñu wax ak moom commune bi ci boppam impacté la té commune bi poste de santé bi terre bi fay jaar da koy toj euh, centre de formation bi terre bi da koy toj donc ñun ay impacté lañu au même titre que les les les disons les les personnes euh, physiques wa yi nga xam ay impacté lañu donc ñun biñ ñu ñëwee sollicité ñu mais dañu bëgg ñu wutal leen local pour que ñu def fi maison terre ñu tuddee MTR au lieu que wa sébi di dem ba téngé par exemple pour euh, seen conciliation ak seen euh, paiement yi pour que ñom ñu défé fi ci ci Sébikotane ci la ñu jël benn salle ci centre socio-culturel bi jox leen ko moyennant aussi ñom dañuy jox appui hein amna appui bo xamné de 13 millions bo xamné appui ci daf ñu koy jox pour ñu mën ko jox euh, euh salle bobu donc loolu nekk na lu lu ñu def pour APIX waaye def nañ ko aussi pour suñu impacté yi ñu wàññi leen coono ñu naroon am pour di dem ba ba Tëngéej euh, pour wàllum poste de santé bi tamit ñu ngi def ay démarches ak ñoom ba am nañu fu ñu koy reloger ah am na ku ñu waxtaanal ba juboo nañu ba ñun euh, commune bi dina ko foofu ci euh, benn bâtiment bu nekk en fii nii foofu la ñuy yóbbu poste de santé bi temporairement. ñu ngi waxtaan ak ñoom nag pour indemnisation bi ñu war a indemniser pour que aussi à la place d'un poste de santé ñu war a mën a tabax un un centre de de santé. ñu ngi tamit euh, euh, négocier ak waa ministère des collectivités territoriales pour CNDFI bi nga xam ne mu ngi fi ñu mën ñu ko abal à titre temporaire ñu abriter mu loger centre de formation bi ba keroog centre bi nga xam ne maa ko doon tudd sànq te ministre bi ministère de de la formation professionnelle war ko tambali pour que le temps que ñu koy tabax ñu mën a centre bi fi ci CNDF défi bi donc yooyu yëpp ay action la yo xamné ñu ngi koy def euh, par rapport à disons à au euh, à ses impacts. ci sa xarañte bopp ak sa xarañte équipe dem na pour pousser leen à que ngeen décrocher li nga xam ne moom mooy euh, gaar bi euh, nekkoon jiixi jaaxa ci xelu waa Sébikotane ak li ko war yëpp euh, tey ban ban voies et la monsieur le maire jaar avec son équipe pour que nag mën a décrocher loolu di gaar boobu. ok jërëjëf ñun dañuy sante yàlla bi nga xam ne ne tey jii nii Sébikotane dina am gaar ndax ñu fi ñëwee dañoo toog yàggul ñu war a lancer deuxième phase terre bi. man mi invité woon nañ ma ci cérémonie de lancement deuxième phase bi à l' aéroport de Diass bañ fa demee tamit présenté nañu fa projet bi ci écran yi ak ci affiche yi président jël aussi wax projet bi coût bi délai yeeg yooyu infrastructure lu muy am Sébikotane amul yoon gaar parce que benn gaar lañ fa présenté woon jamono boobu mooy gaaru aéroport de Diass donc ñun bi ñuy ñëw il est clair et net que terre bi amul woon gaar bu ñu prévoir woon fii ci Sébikotane ci jour bobu man dajana ak directeur apex Mountaga Sy ci ci ki ba ñu waxtaan mu ne ma léegi après da ngay euh ma recevoir la comme ça ñu gëna yaatal waxtaan bi bi lolou weesoo tamit man dem apex euh mu ma ak le directeur du terre ki nga ne mo yoré projet bi ci bopam mo ñu tok waxtaan mané ko euh, légui ñun dañu am ay préoccupation bi ci jitu moy dañu wara am gar te gis nañ ne ñu gaar dañu wara aussi am ay passerelles yu bëri ay points de passage parce que bëgguñu tamit terre bi jaar xaaj bi en deux voie de communication yu mu compliqué dañu dañu bëgg tamit euh, ci seen volet bi ngeen jëlaale en compte l'assainissement assainissement ma wax ko daal li nga xam ne lépp suñu préoccupation la ñu ñu wax ko ko ba ñu toogee après ay fan mu ñu ah euh, léegi euh, wut nañu un bureau d' étude bu war a def étude pour gaar am se bi jox nañ ko ordre de service man ak ñom nak dañuy communiquer souvent wa apex yi parce que dafa am leneen lo xamne mo ñu bolé wax nañ ko aussi li wax ni wax nañ ko préfet ah biñu démé gis ko wax nañ ko ne bi dafa war am nga amna réunion biñu amone préfecture ak wa apex ak ñep on a posé le problème de la gare de bon ñuy dem ñuy dem ba fan mu war ñu né ah amna yakane di ngeen am gare parce que bureau d'étude bi avancé na ci étude yi am ay proposition ah, ñuy suivre ba kérok ñu woo ñu à la gouvernance ñu ne ñu lekkee na c'est acquis site bi dafa war a am gaar ñu présenté ñu ñetti site bi ñu waxtaanee am na site bi nga xam ne moom moo jaakaarloo ak euh, Anour nekk sant centre Tadjaboon ñoom gis nañu techniquement les technicien foofu la gaar bi gën a baaxee te ci lay gën a gaawee ci liggéey ak ci wàllum euh, disons rapidité d'exécution maanaam gaawaay bi ak yooyu ba tey jii ni gaaru teer bi foofu lañ koy def donc ñun ba ñu faloo daal li nga xam ne waroon nañ ko def pour Sébi am gar ñun en tant que commune def nañ ko te tey ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne Sébi am na gaar. bon naturellement nag du combat bu wees ndaxte ñun avant ñuy falu waa Sébikotane bi ñu déggee ne amuñu gaar ñu doon mobiliser wu à travers euh, collectif pas de pas de gar pas de terre slogan boobu sax euh, defe naa ñëpp xam nañ ko. donc loolu tamit dañ koy rafetlu ah bi nga xamee ne combat boobu yàgg na et que ñun ñu ñëw tamit jël ko en charge. ba tey ni nii Sébikotane dina am gar ñu ci ciy wa waa Sébikotane yépp di ñaan yalla gar bi ñew ak jàmm ak d'accord mu nekk lu am solo ñi ñaan yalla gar bi ñew euh donc euh, ñu koy ñaan aussi tamit mu ñew fekk ñëpp ci jàmm impacté yi ñëpp ñu daal di leen dédommagé ni ko waré mais également ñëpp ñu ci wara a jëriñu aussi donc surtout la jeunesse de Sébikotane ñu mën ci jëlé li nga xamné moy mooy akus néew xëy pour que nak mëna nak mëna nekk ci seen mbir. ni ma lay doli ci gar bi fofu fañ ko def mu ngi jàkkaarloo ak euh, band bi haute tension bi jaaroon dugg Anour bu fekkee miin nga zone bi bu baax te ñu jëlee fa haute tension bi bande boobu nag ñu bëri teg nañ ko bët bi mu fi toogee lu mat juróomi ay famille wala structure ñëw nañu ne ma bande bi di ko réclamer ak yu mel noonu man leen bàyyi leen te yàlla dogal na teer bi foofu lay jàkkaarloo te gis ngeen fépp fu gaaru teer am nit ñi dañuy daaw seen oto ñëw gaare bëgg gaare pour jël teer bi dem bu ñu wàccee jaay seen oto ñibbi gis ngeen ko à Bargny tey opportunité la pour ñun bande boobu ñu aménager ko en parking oto yi bu ñu ñëwee gaare foofu ñuy jóge Thiès pour Kër Moussa sa de suite ku gaare ku ñëw nga gaar sa oto nga jël teer boo wàccee nga jëlaat sa oto et commune bi mën ci am recette ndaxte il faut que ñun ci suñu gis-gis ñu xam ne euh, suuf si foncier bi nga xam ne mooy andi la plupart des recettes mënul day jeex te léegi mu jeex. donc il faut que commune bi mu yenen source de revenu fo xamné dina fa mëna a ay koom-koom pour source bu jeexee mom moo xam ah commune bi dina mëna continuer donc motax tay ñu ngi def parking ci entrée bi ñu ngi am projet parking fofu aussi parking payant ci ci contexte gare bi ci zone industrielle bi tamit am nañ fa un projet aussi de parking parce que camion yu bari ñoo fay dugg mooy côté Fabri métal bi noonu yooyu yëpp c' est des euh, c' est des infrastructures marchandes yoo xam ne bés bu paree dina changer vraiment euh, disons structure recette commune yi nga xam ne tey

bon domaine bo jël tantôt mang la don wax ci walu sport xamna ni terrain stade de football nek na lu soxal euh, askan wi bon perspective bi moy buñu ñu terrain bi 2022 2023 ñu attaquer les les travaux loolu ci ci perspective la bokk bon ci wàllum sport ak ak jeunesse bon wax n'a le projet parking yi ñu yi nga xam tamit euh, am nañ ko bon domaine bo mën di jël tamit euh, ci walum éducation amna ay salle de classe yi nga xam bëgg nañ ko tabax waa Sébikar fi ñu wax ak yéen ñi ñoom ñu ngi am problème de de salle de classe bokku na ci perspective yi euh tabax leen euh, ay ay salle de classe gestion des ordures ñu ngi ci euh, programme ak waa euh, nu mu tuddati waa UCG wa pour xol nu ñu installer ay PRN point de regroupement normalisé ñom li ñu am doyul mais ñun dañoo bëgg yenn point yi ñun commune bi ñu jël ko suñu bopp en en charge pour que euh ñu mëna

muy 2022 2023 ñun ñu ngi ci euh, ñu ngi ci liggéey. ba ngeen ci taxaw. donc nekk na lu am solo euh, donc bu ko defee dañuy amaat encore une fois rek mbégte euh, di jàkkaarloog yow parce que franchement ibbil nga ñu sa bunt à chaque fois bu ñu la soxla yaa ngi am disponibilité pour répondre à l'appel loolu ñu koy jaajëfal ñu la ci jaajëfal bu baax a baax mais say di jaajëfal sa équipe bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def kàddu gu mujj gi dañ koy bàyyi rek nga daal di koy joxe waaw kàddu gu mujj gi damay dellu di leen gërëm di leen sant ci euh, émission bi ngeen ni ñëw pour defal ma ko nii am yaakaar ne di ngeen ko tasaare ba ñëpp joti euh, di gërëm auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ma doon euh, suivre di gërëm aussi équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi vraiment équipe bi équipe très dynamique conseil bi vraiment ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu au passage à chaque fois bu ñu amee conseil ils viennent massivement

nga nga jàpp ci bu soobee yàlla euh, incha allah résultat yi nga xam ne moom lañuy ñuy xaar danañ ko am wala ñu ñu am lu ko lu ko ëpp. jërëjëf ñu ni tamit ñu koy sant di ko baax a baax di ko gërëm yéen ñi ñu doon bàyyi xelu si sur la euh, TV3 channel ñu leen di kontaanee bu baax a baax. di leen gërëm di leen sant wax naa leen ko léegi euh, grand entretien ni lay demee chaque fois dinañ dem seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi mais également dinañ seeti ñi nga xam ne moom mooy les célébrités daal di toog sikk ak ñoom waxtaan mais également ñu permettre leen aussi ngeen découvrir donc yan façon ngeen am yéen ñi nga xam ne yéen a leen fal daal di leen teg ci li nga xam ne moom mooy bopp euh, gox yeeg goxaat yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama réalisateur Baawa di ko kontaanee bu baax a baax koy bëggee bu baax baax le coordinateur le grand coordinateur G ma koy kontaan waxtaanee bu baax a baax Mouya mi féetee ci wàllum li nga xam ne moom mooy make-up également euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax mais du ma tëj aussi tamit euh, waxtaan te gërëmuma bu baax ki nga xam ne moom mooy euh, Sow donc ki nga xam ne mooy Sow ma koy kontaanee bu baax moom moo coordonné émission bi depuis le début nekk ci cabinet maire ñu koy jaajëfal bu baax a baax on vous donne rendez-vous très prochainement incha allah ci beneen numéro bu grand entretien ici sur la TV3 Channel